Ah, tu le connais Top Kennedy Tu le connais Non, non. Ah, sama gars yi booy naa daal mi ngi xam booy naa nen dafa bëgg quatrième avance moom moo mu jël ko. barke Rasulullah day xaru de booy a ngi xaru naar a ngi xaru naar a ngi jël ki nga xam ne moo mën ci génération naar a ngi xaru naar a ngi xaru yow naar moom nga bëgg a. Ah, tu lo colle Tutti Non è un calcio. gars yi booy naa daal mi ngi xam booy naa nen dafa bëgg quatrième avance moom moo mu jël ko. ak rasulaay day xaru de booy a ngi xaru naar a ngi xaru naar a ngi jël ki nga xam ne moo mën ci génération naar a ngi xaru naar a ngi xaru naar moom moo bëgg a